sallallahu alayhi wa ala wa asxaabihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa wa barakaatu. ñu dellu si ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu ñetteel bi jataay ci li nga xamante ni nii moom mooy sa ak wattuloo gone yi ak ndaw ñi li nga xamante ni nii moom mooy pas-pasub islam bu wér te mu nekk ab bataaxal boo xam ni ci tàmbali la ci wàllu pas-pas mu tegu ci tënk bu am solo kako taalif nag di al cheikh muhammad bun ibrahim al misri xafidahu llahu taala mu mel ni kon ci jataay bi ñi ngi ci ñetteelu laaj bi te muy man nabiyuk kan mooy sa yonant mu ne tontu ba mooy nabiyi muhammadun sallallahu alayhi wa ala sama yonant mooy muhammad sallallahu alayhi wa ala wa sallam laaj ba nekkoon kan mooy sa yonant ba mooy sama yonant mooy muhammad sallallahu alayhi wa ala wa sallam bu ko defee loolu firnde ga mooy lan ndax bàyyil xel ne tomb yi bokk ci tombi pas-pas surtout ñetti tomb yi nga xam ni moom lañuy laaj nit ki ci biir bàmmeelam kuy sa boroom lan mooy sa diina ak kuy sa yonant loolee dafa am lu mu laaj li mu laaj mooy nit ki da ko war a jàng njàngin woo xam ni day wér tegu ci firnde bu dul loolu su fekkee danga koo teg ci toppandoor rekk toppandoor boobu du la jëriñ moo tax boroom xam-xam yi dañ koy faral di baamtu lool walla bokk lu bari ci ne rot na ci yenn xadis yi waajoojee nga xam ni dañ koy laaj ci biir bàmmeelam kan mooy sa boroom mu ne xaaxaa xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp luy sa diina xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp kuy sa yonant xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp ñu ne kon waa ji daan na àndaloog nit ñi di wax di leen toppandoor waaye nag jéemu ko woon a jàng gis nga jéemul woon a jàng moo tax des na ko tontu sax ne ko maa darayta wa maa talayta yow daal ndekete jàngoo xamoo kon gis nga danger wu ñàkk jàng jéemut woon a jàng njàngin mu wér maanaam mu tegu ci ay firnde mu tegu ci ay firnde moo tax boroom xam-xam yi ne kon toppandoo gi nga gi nga ciy nekke fii ci kaw suuf bu fekkee ca nga yam képp jéemoo koo jàng mu tegu ci firnde ci ay tegtal toppandoor googu du la jëriñ ndax waajee ma nga nële xadis bay di nettali ne buñ ko laajee mu ne xaw ma dama daan dégg nit ñi rek ma cay topp ñu ne ko yow jàngoo xamoo kon fexeel ba ah, nga wag say loxo mbubb fexe ba jàng tomb yi teg ko ci ay firnde bu ko defee kon kuy sa yonant mu ne sama yonantu mooy muhammad sallallahu alayhi wa waaw luy firnde bi bokk na ci firnde yi muhammadun rasulullah sunu boroom ne muhammad mii yonantab yàlla la waaw loolu benn la ci firnde yi firnde yi bari na lool sax waaye loolu benn la ci firnde yi ci alquran suñu boroom addu xam ngeen ne alquran boo neen demee di fa fekk saar wu tudd suuratu muhammad gis nga ko sallallahu alayhi wa ala alihi gis nga kon firndee gi noonu bu ko defee kuy sa yonant muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo sama yonant luy firnde bi sunu boroom moo ne muhammadun rasulullah bu ko defee mu tegu nag ci xam-xam bu nosewu bu wér te leer bu ko defee lii nga fas ko gëm ko waaye nag fexe góor góorlu tamit bul yam ca loolu képp nga yaataal aliwe ji xam kan mooy yonant bi xamin bu wér tamit xam jaar-jaaram xam dundam xam nekk ga mu nekk nu buuwa kañ la tàmbale ak nu buuwa ga ñaata at la def ak moom ak ci lan la doon woote xam li nga xam ni daal moo aju ci dundam te jullit war koo xam nga xam ni jullit bu ko réeree des na ko ci yedd loolee nga góorgóorlu ci bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysiir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.